والمحبة sëriñ bi nee mi ngi gërëm yàlla. nee mi ngi sant. nee mi ngi sant xaritam. nee ku mu bëgg. muy Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. nee na mi ngi ñaanal. ñaanal maamam Seydina Limaamu alayhi salaatu wa yàlla taas ñu ci barkeem yaa rabbi nee na te bis bi li nga xam ni moo ci seen njort sëriñ bi ne yal na ko yàlla mottali nee te lépp loo xam ni nee na doon ngeen ko ci wuti ci mbaax sëriñ bi nee na yal na ko ci yàlla mottali sëriñ bi nee na di wax ni nee na tey nee na dafa bokk ci bis yi nga xam ni. jafe woon na sax maanaam. sëriñ bi nee na jafe woon na sax maanaam. ak li mu fekk li mu fekkee. nee na ak lim ñu fekkee. tombe ci ñun. nee na tombe ko ci ñun. ñun daal di mën a bàyyindiku. ba ñëw ci bis bi. waaye dafa di. waaye dafa di. Cees. lépp luñ fi xewle. lépp luñ fi xewle. nee na moom sëñ Assane mu yëg ko. bu programme amoon Dakar yi. bu programme amoon Dakar yi danaa ko fa bàyyi ñëw Cees nee na lool nag du yàlla la sëriñ bi nee na mi ngi gërëm nee na ñi mu fi fekk ñuy ay nawleem di ay nit ñu baax sëriñ bi nee ku lim nag juum nee na li tax ma dagg ne man sëriñ Assane Gueye du ma ñaan nee na dafay fekk ay maamam ñuy waa Njëganeen nee na moom it muy seen maam nee na yéen ay maamam ngeen moom it seen maam la loolu de nag nee na kon da ngeen di maase ba lépp lu nuy waaj ñun yéen yéen a cay jiitu ñoom lu nuy waaj ñun ñoo cay jiitu sëriñ bi nee na di gërëm nag nee na koo xam ni xale la jóg ne ci yoon wi muy Cheikh bu sàmb yal na ko yàlla taxawal ci barke Seydina Muhammad yal na ko yàlla taxawal nee na ci barke Seydina Muhammad sëriñ bi ne kitaabu naa ko ci barke alxuraan nee na Sadbou Samb mii nit ku baax la nee nit ku dëggu la waaye xale bu yaru la nee na seede sax mbaax nag nee na loolu du sax mbon wolof njaay nee na wax sa baaxu waay du wàññi sax mbaax dara déedéet nee na nit ku baax ku waxul mbaaxam nee na mu sax ca mbaax rek ba yàlla baaxal ko nee na bu mënta baax it nay jéem a baax rek bu yàlla ñëwee moo xam ni loolu la waaye mbaax rek nga ci bëgg yàlla na la yàlla defar ci barke Seydina Muhammad Bilal Bilal. barki démb damay waxtaan nii. nee na barki démb day waxtaan nii. il faut que nit ñi. nee ñu ñuul ñi. bàyyi complexé. bàyyi ci kanamu nasaraan bi. nee na ci kanamu nasaraan bi. ndax ndax. Seydina Muhammad Seydina Muhammad dafa tànn ci tànneef. dafa tànn ci tànneef yi. xool lislaam. daal di xool ni lislaam. dafa am fu muy mujjee. dafa am fu muy mujjee. te bu fa yeggee. te bu yeggee. baat bi nas bi bi. nocc bi. nocc bi nit ku ñuul a koy moom nee na mu jël bilaal génne en 642 génne en 642 en 622 dem makkatal mukarrama jóge fa dem Medina bi mu àggee Medina nee na kenn la ni maa ngi door a tabax juma maa ngi door a tabax juma nee na fu ñëpp di daje kenn laay njëkk a tànn mu ne ashadu an la ilaha illallah رسول ان محمد رسول الله ني الله اكبر نعم، موي بلال ابن رباح نمو ملون سيغ بي ني دا فا نيول سيتلو وني نينا سيتلو وني بونو خيبي سونو بوب نينا داني توراخال سونو يارام نينا تي كونو گن امول ديدت ديدت امنا نو سيرن توبا نينا نون امنا نو سيرن توبا sama maam nee na. nee na sama maam nee na. mooy rasulillahi. mooy rasulillahi. kenn du weddi. nee na loolu kenn du weddi. ba mu ne aji boo daaya laa. ba mu ne aji boo daaya laa. ñii bokk ak moom. ñii bokk ak moom. bañuñu ko. bañuñu ko. dañ koo xamul. nee na dañ koo xamul. wallaay bañuñu ko nee na wallaahi bañuñu ko dañ koo xamul de nee na dañ koo xamul rek Cheikh Ahmadou Bamba it nee Cheikh Ahmadou Bamba it ba mu taxawee fële ca Touba ba mu taxawee fële ca Touba naan ay mbokk ma ko a bañ woote naan ay mbokk ma ko njëkk a bañ bañuñu ko dañ koo xamul nee na bañuñu ko dañ koo xamul bu ñu réer nee na bu ñu réer Serigne nee na Serigne Touba nee naa du sama maam nee naa man sëñ Assane Serigne Touba du sama maam waaye nag moo nu fi garanti de waaye nag ah moo nu fi garanti nag nee na ah loolu nag na leer nag nee na daa bëgg gaa yi di ko wax ndax Cheikh Ahmadou Bamba nee na ndax Cheikh Ahmadou Bamba dafa xool nit ñi dafa xool nit ñi ñuy taalibe yu wér ñuy taalibe yu wér dëggu te gëm ko dëggu te gëm ko ci wetam daa di toog ci wetam ne ko Cheikh Ahmadou Bamba ne ko Cheikh Ahmadou Bamba am na lu nu ragal am na lu nu ragal mun leen lan la ñu ne ko Bamba nun safara lan ragal mu ne du ngeen fa dugg du ngeen fa dugg du ngeen fa dugg lu mu ne lu tax. man Cheikh Ahmadou Bamba. man Cheikh Ahmadou Bamba. lu ma bëgg yàlla def ko. lu ma bëgg yàlla def ko. ca la waxee nii. nee na ca la waxee nii. zimaamun wara asri la dallaay fii yeddi wa maa rumtuhu min malikin xaade bi anni. nee na lu ci waay man. lu ci waay man. nee na lu ci waay man. am nañu Seexu Tijaan. nee na am nañu Seexu Tijaan. nee na li yàlla bind mu gën a rëy ni xut bu yee ci gën a rëy. kuy aktaab yee ci nee na xutbu yi axbaab yee na buddalaahu yee ci topp. nee na buddalaahu yee ci topp. nee na arfano yi yegg si. nee na salaasu lu jabaa door a ñëw. nee na seexu tijaan ni. nee na yëkkati na tànkam bi. nee na teg ko ci ndiggul walliw yi. bi yàlla bindee àdduna. ba keroog muy jeexal àdduna. nee na lu fi yëngu Seex Ahmad Tijaan la man. nee na ku moom loolu. cheikh ne. nee na cheikh boo bëggee cheikh. boo bëggee cheikh. jokk ci cheikh. jokk ci cheikh. cheikh na. cheikh garanti na. xarit yi soppe yi ak dëkkandoo yi adduna ak alaaxira nee kon ñun na lu ñuy ragal. حميد هذا أفعال تكبيرا